baax a baax a baax ñoo ngi nuyu ñëpp rek di sant ñëpp rek leen xamal ni kat yéen tamit Lamp Fall moom ni mu nal rek la moom mooy Lamp Fall mooy maam Cheikh Fall rek ni mu tiime sooroor bi tiime sooroor yëpp rek jiitu bi njëkk fi rek noonu ñooni ko yëre noonu la demee rek bu fi dara xew fu ne rek ci àdduna bi yéen ñëpp yéen a ngi fa teew yow di ko fa teewal rek lu ngeen ci def nag suñ maam ngeen ko defal rek ndax yëg nañ tàppale gi yëpp fu waaye mën a bàyyi ko ndimbali waaye noo ngi ñaan lépp yokk rajo bi day na yokk bu baax fison bi yokk bu baax ba ci ba ci ilaatu kii boobu kaar bi bis bi waaw bis bi dama mën naa ko mën naa ko bëgg naa ko ñam sax <laughs> bëgg naa cee dugg bu soo yàlla ñam ñam ko waaw ko waaw ñu sant ñaan bu baax baax rek moom laa di xamal bis bi itam rek nii ni ko daan defee rek noo ngi ci soñ suñu bopp di soñ ñëpp rek ndax damaa wax ni jamono bi ko sëñ Modou Sy tàmbali boo man ci daari suñ foolu laa ne ndax suñ foolu bi muy bi muy nelaw boo maa ngi ca daara ja waaw bi ginnaawam bi ko sëñ du tàmbali boo maa fa nekk naa ba 73 la ma sëñ bi doog a yeewi ma ñibbi kon mel ni que soleil bi moom ah, xam naa ci dara bam ñu yeewi tamit dama ko tàmbali li ko def itam sama kër nag waxtu bu màggal ak seet moom dama koy def man mel naa ne sax mooy saa bisu bopp mhm. soxna maam ma dem bàkkam sëñ Fallu mii tax dama cee fekk mhm. dañ ma koy jox waaye nag daa fekk ma di ko def moom itam ma ngi koy def ci këram ñun ñëpp ak bàyyi fa ñëpp ñu ànd jàpp ci itam nag bu baax lan lu ko war ñu ngi koy def lu nu war fii ñu ngi ko fiy def te bëgguñu nag dara manque ci gan yi sigar sax it ñoom it damaa bëgg sax bu kiyee bu bi sax jëm tudd fa yàlla bu baax ndax moom itam ci la bu ko defee ci ngoon gi nag ñu ñu féetewoo ko nag nun bàyyi faal yi bàyyi ko moom nag ak mbàkke mbàkke yi ñu jàngal ko ñoom suñu ibra cuun waaw <laughs> ibra cuun men waaw sel gi sant bu baax a baax a baax rek waaw suñ tool nag moom ah nuñ la niñ ko xamee moom mooy ah, jamono bi mu demee ak ci toogaayu suñ Tuubaa bi dafa daal di fa bu jumaa ji rek waaw jumaa ji ci la daal di fa sumb ko def ko muy léppam bëggatul kër gu baax bëggatul dar lu may liggéey sëñ Touba bii mu leen sant ñu digal ñu digal leen ko ci la taxaw rek ba ni jumaa ji eggee ndax daa wax ni kat ni sëñ bi kat wax na ni yàlla suñu borom moo ko digal mu digal nu ko buñ ko liggéeyul ay malaayika danañ wàcc fi liggéey ko kon nag bala ko ñooñu liggéey nun ñi nañ ko liggéey loolu nag sëñ Fall itam ci loolu la taxawoon rek ba ba xamante ni ba ma fa bee doj ba yóbbu ko jëlee ko ndokk yóbbu ko sëñ Tuubaa ba mu gis doju carrière bi rek laa xam ne bii doj yu baax na moom itam la daal di fa rek daal di soñ nag ñëpp nag rek seex yi fi ne woon ñëpp kenn desut yoonu murit yëpp noonu lañ fa ba woon ñun ñii tamit jamono yéen fa ñëwee ci allié noonu lañ fa nekkoon rek buñ mosaan <clears throat> buñ mosaan tàmbali liggéey sax moom day waat sëñ Fallu daana waat ne lu ngeen ji su fekkee nar naa ci jëmale benn dërëm fu dul ci jumaay Touba ji lu ngeen bay yàlla mel ni xorom sëñ Fallu daan waat noonu la ko doon defee di ko liggéey liggéey bu si yëpp noonu la ko defee ñun ndongo yi ànd moom waxtu bu ne day jóg taal otom waxtu bu di ñëw di wër tool yi waaw dañ tool yi dañ ko daan béy tool boo ci egg boo béyee ba ci yoon wi da koy bay ba mu set sa morom def noonu sa morom def noonu nga xam ne yoon yi du am ñax benn ndax xamoo sëñ bi kañ la fiy jóg di fi jaar xamoo gudd xamoo bëccëg noonu la naa def ci allié waaw li lañ fa nekk lépp it noonu lañ def saa bu liggéey ba egg itam day daal di woo woo ñi nga xam ne ñoo war a jàmbale ci jàppale ci ñi nga xam ne ñoo koy déqi ñëw déqi ko bu njëkkoon sax dañ daan def buñ déqee bàyyi na ko fa ñun ñoo koy dajale suñu bopp waaye loolu sa mujj gi demoon ba lu bari day ruus ndax ndax dañ ci xaw néew doole waaw ndax mbooloo bu ñu dajalee déqi day daal di xaw a bu bu bu yàggee tuuti dajale wuñ ko day daal di xaw a yéeme lool mujj gi mu ne nag joxe ndigalul ku déqeeti na nga ko dajale naaf ko soog a dem waaw kilifa yëpp nag noonu lañ daan def booba waaye moom tax boobu it moom bi lu mu ci bëggoon boobu mooy woo ñëpp bokk ci liggéey bi rek ñu dong yi liggéeyee ci daara ji seex si nga xam ne ñoom it daa aju ci ñoom da leen ciy woo ñu ñëw en fekkale fekk fekk fekk àggalib liggéey bi ñoom ñoo ñu koy déqil ñoo ñu koy dajaleel ñoo ñu koy naafal su ko defee nun ndongo yi ko bayoon nag ñu daal koy tàmbali nag doo ko doo ko doo koo bàcc féetewoo mbàcc mi am na si daara yoo xam ni dañuy séddoo seenu kilomètre waaw am na ci ñoo xam ne nag dañ koy bokk rek waaw bokk bokk mbàcc mi bokk mbees mi bokk roñu gerte gi lépp noonu la ko naa def sëñ bi waaw moom daal sëñ Fall daal moom liggéey la xamoon bay bay tamit wax naa fi bër barki dem ni leen machines yi machines yi ñuy béyee man ci moom laa ko njëkk gisee boobu tracteur ak machines yi peel yi rij yi yooyu jamono boobu allier gii boobu dafa dëgër léegi la ma ko si wax di wax naa ba suñu sax jëmb nee na boobu dat la tuddoon dat lañ ko ko tuddoon booba dëgëraay ba moo taxoon machine bi boobee nag moo daan def bu ñu roojee ba noppi mu ku ñuy wax ma jóob sekk moo ko yoroon moo koy labourer am guddi sax da ko daan liggéey ma jób sekk moom mais boo mel ni moom dong moo yoroon liggéey bi du woon tool yëpp dëgër nag waaye da ci amoon yoo xam ne yow bi féete woon nag jëm jëm yoon Touba bi moo gënoon dëgër tool boobu sa dafa mel ni amoon na ci jamono yoo xam ne ñun ñii noo ko féete woon ci daare Baye Ndam Ndiaye ama na fa jamono yoo xam ne itam ku ñuy wax saam saam saam ñang moom moom moo ko féete woon waaw noonu noonu lañ ko doon liggéey waaw daare yi noonu la rangee woon boo woon ku ñuy wax Baye Mour Cissé moo doon jëwriñ ji moom jëwriñ ju mag jéem nga xam ni ku fa ab dongane ne rek kii moom am na tool boppam sax waaye nag moom moo doon see moo doon jëwriñ mel daal mooy général <laughs> noonu la demee woon waaw ku jàmbale ku baax lool nag waaw waaw sant rek di sant bu baax rek di ñaanal sëñ bii nga xam ne moo fi nekkal sëñ Touba yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko lool te naal yi mu naal yëpp yàlla àggale ko barke sëñ Fallu ak sëñ Abdou Abou Mbacke baraka mii moom tamit noonu yàlla yàggal ko loolu ci wérul ko bu baax ak njabootam gi yëpp ak waa ko sëñ Fallou yëpp góor ak jigéen waaw ak sun ak maam sëñ sëñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne moo fi nekkal sun maam Cheikh Ibra Fall yàlla yàggal ko di wéral ko lool léegi dama Cheikh Ndambe di jotal ab niyoom ak cantam ndax moom dafa jaaroon foofu ci kër sëñ Fallou ndax kër sëñ Fallou bari na doomi kilifa yu bari fi jaaroon ndax am na at moo xam ne sëñ Modou seen dafa maa woo ni ma da may wool ma doomi kilifa yëpp ñi nga xam ne jaaroon nañ ci daari sëñ Fallou ma daal tàmbali di ko lim ba ba tudd ma naar jen mu ne ma mu ne ma sëñ naar jenn da nga ko tuddoo ko ma ne ko ah kooku ne mu ne ma mu ne ma nekkoon na fi da boo yow yow fekkulu fi waaw mu ne ma mu ne ma ne ko ah loolu dama xawma ko woon moom mu ne ma newoon na fii ndax fi ñu lekk nii sax nun bokk na ci tool sëñ tool mooy ñànk di ko dell nii fii ne ba ngay dem nii ca gaaras ba jëm nii fii ne fii dama ne yooyu fii sëñ tool daana ko bay amal ab jullukaayam boo xam ne boo génnee nii rek am na amoon na fii ci ci yoon wi waaw waaw moom sëñ bi moom bay la fonkoon lool nag ndax jumaa ji da koo bay nag jumaa ji li ci yëpp lépp moom lañu ko bay ndax boobu ni tukki amee ameewu nii waaw boobu tukki jafe na lool mbaa boog sax xel yi ak gunu ci loolu waaw moo tax li ci ëpp jumaa ji moom dañ koo bay noonu la te leen moom noonu la ci woowoon ñëpp nag rek booleb li ci jiitu ci jumaa ji moom dañ ko bay ginnaaw bi mu demee ba nii rek la tukki ubbiku xel yi gën a yokku pexe yi gën a bari waaye bu njëkkoon murid moom bay rek la xam waaw bay bay rek lu mu àddiye dañ koy bay léegi noonu lañ ko daan def lépp daal koy toppatoo ba mat ñu daal koy indil sëñ bi ñu ngi sant nag bu baax a baax a baax rek sëñ Fallu daal moom noo ngi koy bëgg di ko wóol di ko ak ñun ñëpp waaw te ñaan nag rek ci barkeem yàlla def naataanga ci réew mépp def ci ak juboo bu baax a baax a baax jub ci ak wér gu baax a baax a baax ak yokkaat kaaraange gi itam ba sunu doom yéeg sunu sët yeeg ñëpp ñuy fab di sàcc di yóbbu noo ngi ñaan itam ci doole sëñ Fallu rekk loolu tam yàlla jeexal ko fi tàkk ndax gone yi ñu ngi leen jàpp rek ba ci sëñ Modou Sy Dieng boobu ñu jël ñu téye ko muy sëñ Mourtala di ko baax ah wax dëgg yàlla metti na lool te booba léegi ay waajurum xamuñu ci moom dara waaw nañ jàpp bu baax te fas yéene téye gone yi fii ne gone ku ma fi nuyu sax te yor gone dama laan téye su kilifa yi daa ni ak ñi nga xam ne dañ leen a tudde ku baax daa ni moom lañ gën a soxla am sëñ fol mbaam sëñ tu moom loolu lépp daanaka nun ñii sax nun ñii sax bokk nañ ci la la yekk boole ñu andi ko waaw ndax ku xam na sëñ Moustapha ak sëñ Fallou lañ demee woon ndax bi sëñ bi làqu kat waaw ah, sëñ Modou Moustapha toog dinaa bi sëñ Moustapha Mbacké làqu moom bi accès mel na yoon yi xawoon naa këfin lool waaw ba moom bokkoon na ci ñi nga xam ne moom jàppale woon nañu sëñ Fallou nag lool nag waaw lu ne dégg na ko nag waaye nag loolu te du dara nag lu may ay ngëlëmte la woon rek ci nit ñëpp nag ndax moom kilifa gu mag gu noonu loolu bu demee ña koy wóotu dañuy gëlëm rek ba dañuy jàpp jàpp ni la fa ne moo war a nekk rek sax te fekk na déedéet moom moom moom moom moom dañuy wut noonu la fa nekk nag boobu mooy ku fi nekk sëñ Touba rek ñëpp dañaa war a dem topp la ci la ci ëpp ci maanaam ndax koo xam ni sëñ bi joxoon na la ndab rek da ngaa war a dem ci ka nga xam ni moo fi nekkal sëñ Touba ndax sama baay sax dégg naa maam Seydou nelawee àggoon na ci seex si nga xam ni ñoo toppoon maam Cheikh Ibra daa waxoon ni képp koo ci xam ni sama maam joxoon na la bool yi soo ma fi weesoo ma bënn ko ñépp dañu ñëw ci man keneen na fu la neex dem waaye ñi nga xam dañ leen joxoon ndab ñu moom ñu ñu moom moom moom dañ ko dëjoon bool yi boo koy weesu mu di ko foq yëpp dal da wut si ko waaw amul lax-lax ma loolu loo ko waaw moo tax itam maanaam itam loola tamit la doon soññee ni ku sëñ Tuubaa joxoon ndab boo fi weesu sëñ Fall ñu bënd ko waaw foo fi mën a ne it mën ngaa nekk yëngu waaye nag xorom sa dëgg dëgg dëgg baatin ba la ci am mm. des na waaw ndax moom ki fi nekk sëñ bi dañ ko naan mi ngi nii rek top ko nun ñëpp ba ci sëñ Muntaxaa mii noonu lañ ko war a def am na ñoo xam ne moom waruñoo jàdd jëm fenn déedéet ak loo mën a yor nag moom moom mën nañ laa gëm mën nañ laa sopp mën nañ laa wóol waaye nag jox la seen bopp moom ah, am na ci loolu moom am na foo koy war a jëme nag waaw noonu rek la demee woon loolu suñu toppoon suñu fool nag rek waaw ba amoon na jamono yoo xam ne moom fu mu taxaw moom dong mooy wax déer bu fi ne sëñ Moustapha Fall benn xalif général bu fi ne muy sëñ Modou Moustapha Mbacké moomu kenn du wax mooy wax te bu waxee rek wax ji jeex waaw ba sëñ Fall moomu noonu waaw ñu ngi may dégg seen yoonu ndar woo xam sax ci ci commandement bi bi ñu accès sax te woote fa bi ñu accès te ni ko xamal ko ni ko meenum yow dong yaa mën a wax yaa dama leen soxla yoon te yow dañuy wax ne boo ci dugalee sa kàddu ñëpp ñëw mu ne waaw waaye nag da may jox ay waruwaay ñoo xam ne ñi ñi fiy ñëw ndar ñëpp yaa leen di wutal lu ñu indi lu leen indi yaa leen di wutal kër yu ñuy dal yaa leen di jox lu ñuy lekk ak lu ñuy naan waaw bañ àgg ci ba ñëpp toogit dafa wax ne fukki nit laa may wax ñu mbooloo fi ne ñëpp mënuma kenn ku ne jël parole waaye nag fukk laa may ñu wax sama baay la ko sëñ Fallu sëñ Fallu laa ne ko waaye Moustapha li nu fi indi yow mii yow mii yaa wax li nu fi indi kon yow dong yaay wax mu jeex keneen du wax waaw booba laa samp sëñ Fallu nag waaw mu daal jeex ba tey yoonu murid noonu lay dox ku fi mag yow yaa fi toog sama baay loolu loolu toppoon àndoon suñ fol ak nag ñeme addiyi nag lool nag waaw dégg naa danaa suñ Mourou Moussa Mbacke ak suñ fol ne leen su ma yónnee jox leen na ngeen yónnee laaj ma su ma yónnee si wutit na ngeen yónnee ndax boo amee garab goo xam ni daa am njariñ te bëggoo ko wut raas raas ko da nga koy raas di ko gësëm bu ñor tabbi bu xaay tabbi loolu mooy taalibi bi buy jànkoonteeg ndigal yu bari doo mën a def leneen lu dul ndigal noonu rek la woon waaw moom rek loolu rek la woon ba léegi noonu mooy dox rek man ne fii ne léeg-léeg kenn ab taali bi sax di ko teg rek <laughs> di ko teg rek di ko teg rek te fekk na may loolu dong moo tax man di ko def waaw loolu dong laaj ci jublu xam ni tam am na ci ñooy tamit fekk damay bañ rek nga yàqate ko rek am na ñoo dañ koy fooyee am na ñoo xamante ni bii ni lañ duñ ko dul xam nu mu demee bu ko defee nag da nga koy teg rek. Mhm. loo mën a këf ci moom rek këf ko rek. waaw ko foo xam ni moom yàq du ci mën a egg. te loolu mooy ab taal bi waaw loolu mooy mooy ab taal bi ma sant nag bu baax a baax a baax rek ñu toll. Modou Moustapha suñu baay bi joxee sëñ Fallu sëñ Seex jëmb joxoon na ko fa. Mhm. waaw sëñ Seex Xadi Gey nekkoon na fa. sëñ Seexu naa Fall moom sëñ Moustapha waaw. ak euh, kii euh, moom sëñ Moustapha nekkoon na fa waaw man mii newoon naa fa waaw bari na daal ñu fa newoon waaw waaw jigéen ñi soxna yi tamit gis nga ko sëñ soxna maam say mooy waaju sëñ Ebo Mbàkke mii waaw moom gis indi soxna Adama Fall Asan moo yur yaa moo yaay sëñ Xàbba waaw moom i tamit moo ko bokkoon rek ñu ko fa indi woon soxna Daba Fall itam moo jur sëñ Saalum sëñ Fallu Baye Fall tan ko daan dàkkale ci Baye Fall moom it Baye moom it ya moom it yaayam moom it yaayam sëñ ba ci ba ci kër sëñ Mourtala Mbàkke gis nga ko na fa moo jur sëñ Fallu mu sëñ Mourtala waaw gis nga joxoon na ko yaay jee moom moo jur yaay njaxat waaw moom moom sëñ Mourou Moustapha Mbàkke noonu la topp woon nag kër sëñ su ba kër sëñ Mbàkke Madina nag waaw fépp rek sox ban la ñu fa yóbboon waaye da ko caa daan boole itam ku mu teg fi barab ku ne day am ay gone yu mu lay jox nga yoru boole ci jàppale la itam ca dund ba dañuy jëfandikoo ndax yooyu jamono ak léegi daa bokkut waaw boo boo bëgg a teg barab ku nekkat da nga ci jàpp tey kilifa waaye nag boobu daam lu mu doon sàkku rek mooy lii mooy njariñ lii tey rek lii sëñ boobu gis nga mi ngi doon aksi fi waaw noonu rek la moo tax day wax ni maanaam ab sët maam ja moo koy sàkkul barke waaw loolu noonu la demee woon ëpp sët maam jaa koy sàkkul barke moo loolu rek la ba ci ñi ñëpp suñu kilifa am noonu rek la doon sàkku ci yoon wi ndax sama baay sax sama yaay nee na ma mujj gi dafa waxoon ni moom du jël soxna soo xam ne sax koo xam ne baayam daa liggéeyul sëñ Touba wala nga liggéeyal Seex Ibra ku liggéeyal sëñ Touba sëñ soxna Binti Dieng sama yaay wax na ma ko ne ma sëñ mënum saafaal waxoon na ko ne ko fii ma toll kat duutuma jël sax soxna soo xam ne koo ko bàyyi liggéeyul waaw nga xam ne kon loola moom moo ko moom moo ko doon tàmbali sàkkul bopp waaw ba mu jigi gis nga ko loolu tax mu daanaka it bëri na doomi kilifa yu mu dëkkoo woon ak ñoo xam ne dañoo seen bàyyi dañoo tërbiye Cheikh yi dañoo liggéeyal seex Ibra Fall noonu lañ ko noonu la ko topp woon waaw donc ñu sant bu baax a baax rek alhamdulilah ñu naan suñu daal ak suñu maam yëpp rek yàlla yokk seen i leer daal seen barke bu baax suñ Fall moo waxoon ni mooy mooy ab kaamil